violence euh, alors euh, di nga hériter euh, d'un d'un régime d'un système d'un d'un état est-ce que di nga def état des lieux càmbar xool xool nit ñi ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu gérer mais passation de service boo gis état des lieux la xam nga yenn saa yi dañuy jël ay mbir yóbbu ko foo xam ne yeggu fa man barki démb laa nekkoon premier ministre bi may bi may génn dama def état des lieux jël ko jox Sidiki bi ma nekkee finance bi ma fay jógee dama def état des lieux jël jox Abdoulaye Daouda Diallo jox Amadou Hott mais un état des lieux est toujours fait en en cas de passation de de, de service. et xëy na du ngeen xool document mais c'est document bien détaillé bi ma ci gën a marqué mooy bi ma nekkee ministère de finances nanga a nekk ci kees gi euh, marché yi nangam la toll euh, trésor li fa am impôt li fa am douane li fa am mais tout ça est, est dans le document de passation de service disponible au niveau de l'inspection générale des finances ku ci nekk nan nga yoree alalu mais loolu loolu dafay feeñ ci passation de service bi mais du am Euh, benn dynamique boo xam ne dinañ balaa ñuy ngeen di installé wu di nga xool nan la ñu yoree woon état wu alalu réew mi la question de la transparence et de la et des ressources publiques kuy jàng liggéey kuy jàng moom mooy soxla loolu yëpp balaa may liggéey dinaa auditer koo gis mu di ko def day jàng liggéey mais boo xamee bu baax li ngay def bu ñu la joxee procès verbal de passation de service da nga xam lu ciy problème ak lu ci dul problème procès verbal bi ki koy def ci poste yu mag yi c'est un inspecteur général d'État lii laa fi fekk ci budget lii laa fi fekk ci personnel lii laa fi fekk ci oto lii laa fi fekk ci lii ak lii ak lële lañ la dénkoon yëpp lettre yi ma bind nangam la lépp man bi barki dem may jóge primature noonu laa def tant de lettres en instance tant de euh, courrier tel conseiller moo ko yor oto yi nangami oto la essence bi fii la ton mais ça c'est normal ça c'est normal donc boo ko xoolee di nga xam li li li li fi nekk li fi nekkul maintenant y a souvent un show bi nga xam ni bu amee yenn changement yi mën na am wéy dañuy def nii dañuy auditer dañuy def na on n'a pas besoin de tout ça soxlawuñ ko vraiment pour xam li xew non kenn sox koo gis muy def loolu rek xamal ni am na la mu xamul ci liggéey bi mais ku xam liggéey bi bu la neexee nga woo fonctionnaire yu mag yëpp ku ci mës a def passation de service kam ko jox lañ la jox xam nga li nekk ci biir yëpp